رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا حمدا حمدا يوافي نعمه يوافي نعمه ويكافي مزيدا ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ci bés bu mel nii ci bes bu taar bu mel nii moom borom bi tabaraka wa taala moom borom bi tabaraka wa taala ko mu tànn ko sowe ci ay yonent sowe ci ay yonent xettali ci ay ñoñam xettali ci ay ñoñam la ko dalee ci seydina aadama la ko dalee ci seydina aadama ci seydina nuux ci Seydina Nuux ci bés bu mel nii ci bés bu mel nii ci la teru ab gaalam la tegoon ab gaalam teru ab gaalam ci la teru woon ab gaalam ci bés bu mel ni ci bés bu mel nii tam Seydina Yunus Seydina Yunus ci la ko yàlla génnee ci biiru jën ci la ko yàlla génnee ci biiru jën ci Seydina Isa ci la ko yàlla yëkkati ci la ko yàlla yëkkati xettali ko xettali ko ci loxoy ay noonam ci loxoy ay noonam inni raafiuka inni raafiuka ilayya ilayya wa mutahhiruka wa mutahhiruka min alladina kafaru min alladina kafaru ci bés bu mel nii ci bés bu mel nii ci la ko yàlla wuyu woon ci la ko yàlla wuyu woon kon ci bés yu mag yi ci bés yu mag yi ci yu mag yi ci bés yu mag yi ci la mu mel ni borom bi mu mel ni borom bi bu dee jëm bu dee jëm am jamono di am jamono waaye waaye ruuxu itam dafay am jamono dafay am jamono jamono jëm jamono jëm mu wàccee xéewal mu wàccee xéewal ci nawet gi ci nawet bi waaye comme ruuxu moo gën a am important waaye comme ruuxu bi moo gën a am solo moo tax moo tax mu am ay bés yu bëri mu am ay bés yu bëri ci biir at bi ci biir at bi bu korite di jeex bu korite bi jeex tabaski di dugg tabaski di dugg bu tabaski bi di jeex bu tabaski bi di jeex tam xarit bi dugg tam xarit bi dugg tam xarit buy jeex bu tam xarit di jeex weeru gàmmu dugg weeru gàmmu dugg gàmmu di jeex gàmmu gi jeex weeru rajab dugg weeru rajab dugg mooy isra mooy isra wal mi'raj wal mi'raj boobu it buy jeex rek boobu it buy jeex rek weeru koor weeru koor wala nisfu shaaban wala nisfu shaaban dal di dugg si dal di dugg si boobu buy jeex. boobu buy jeex. weeru koor duggaat. weeru koor duggaat. mu dakkiruhum. mu dakkiruhum. bi ayyaamillaahi. bi ayyaamillaahi. ni yow yonente bi. ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ak ñi la wuutu. ak ñi la wuutu. mooy borom xam-xam yi. mooy borom xam-xam yi. dee leen di fàttali. dee leen di fàttali. sama jaam yi. sama jaam yi. bés yi nga xamante ne. bés yi nga xamante ne. damay ubbi samay buntuy xéewal ubbi samay buntu xéewal pour ñu mën a ñëw pour ñu mën a ñëw ndax yàlla ndax yàlla li mu bind li mu bind daf koo bëgg daf koo bëgg surtout nit nag surtout nit nag inna allaha inna la raufun la raufun rahimu rahimu yërmande googu nag googu nag moo tax mu yebal yeneen yonent moo tax mu yebal yonent bi ka ci mujje mooy yonent bi ka ci bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam alayhi wa salaam ne saay su ma leen feeñoo ne saay su ma leen feeñoo ñoom duñ ko xam ñoom duñ ko xam waaye na leen fàttali waaye nanga leen fàttali moo indi ci bés bu mel nii moo indi ci bés bu mel ni yonent bi fàttali ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko nekkoon ci xat-xat bu ci xat-xat bu rëy. ba ñu tuddee ko. ba ñu tuddee ko. amal husni. atu njàqare. atu njàqare. yàlla ñëw xettali ko. ci bés bu mel nii. ci bés ci weer bi ci weer bii. te mooy muharram. te mooy muharram. mu gàddaay dem ca Madina mu gàddaay dem ca Madina. Xasan ak Xuseynu. yàlla jagle leen itam. yàlla jagle leen itam. jagle leen itam. yàlla jagle leen itam. ci bés bi. ci bi. ci weer bi. kon alhamdulillah. kon alhamdulillah. ñaan. ñaan. mooy li jaar diggante nit ki. mooy li jaar diggante nit ki. ak yàlla. ak yàlla. yàlla ne budul woon ñaan. yàlla ne budul woon ñaan. du ma déggoog yéen. du ma téléphone bii ñuy woote. téléphone bii ñuy woote. piis bi. piis bi. ci ngay amee ligne. ci ngay amee ligne. pour mën a woo mën a jokkoo ci nga soxla. yàlla ne ñaan. yàlla ne ñaan. moom mooy piis bi. moom mooy piis bi. kaddu ya ngay wax. kaddu ya ngay wax. mooy ligne biy jaar. sama digganteeg yéen. sama digganteek yéen. qul maa ya'ba'u bikum bikum rabbi rabbi lawlaa du'aa lawlaa budul woon budul ñaan yi seen ñaan yi man yàlla man yàlla du leen faale de du ma leen faale de du toppatoo du ma leen toppatoo sama yoon du sama yoon du nekk ci yéen kon alhamdulillah kon alhamdulillah ñaan boobu nag ñaan boobu nag dana gën a baax dana gën a baax bu tombee bu ak waxtu bu ak waxtu bi waxtu bu baax ak waxtu bu baax te waxtu bi te waxtu bii waxtu bu baax la waxtu bu baax la te jamono lëndëm na te jamono lëndëm na te jamono metti na te jamono metti na te dund neexul te dund neexul yow ci sa bopp yow ci sa bopp li nga tele li nga tele ak ka bari ak ka bari ci sa bopp ci sa bopp ci sa yaram ci sa yaram ci sa am am ci sa am am ci sa njaboot ci sa njaboot li nga ciy gis. li nga ciy gis. te neexu la. te neexul te bugguloo ko ci te bugguloo ko ci. ak ka nga war a ñaan ci yàlla. waa nga war a ñaan ci yàlla. loolu ngay gis. loolu ngay gis. te neexu la. te neexut la. yàlla génneel la yàlla la ko. la nga ca la nga ca bugg. ci sa bopp. ci sa bopp. ci sa njaboot ci sa njaboot. ci sa am-am. ci sa am-am. la ca bugg. la nga ci rafet na ci rafet na. ci yiw. ci yiw. mënoo ko ci def. mënoo ko ciy def. tàllal loxo nga tàllal loxo. ñaan yàlla ñaan yàlla. kon alhamdulilah kon alhamdulilah. bés bii bés bii. ñu tàllal loxo. ñu tàllal loxo. ñaan ci yàlla ñaan ci yàlla. ndax yàlla. ndax yàlla. la ñuy la ñuy ragal. la ñuy ragal. ci suñu bopp. ci suñu bopp. ci suñu njaboot. ci suñu njaboot. ci suñu dund. ci suñu dund. mu ñëw mukk bu mu ñëw mukk waaye lañ ca waaye lañ ca bëgg ci rafet ci rafet na ci jag na ci jag na ci baax na baax na yàlla indil ñu ko yàlla indil ñu ko. defal ñu ko ci suñu dund defal defal ñu ko ci suñu dund. fii ci àdduna fii ci àdduna. fee ca àllaaxira ak fee ca àllaaxira. kon alhamdulilah kon alhamdulilah. yonent bi nag yonent bi sallallahu alayhi ñu jàngal lu bëri. daf ñu lu bëri. bokk na ca. bokk na ca. mooy sant yàlla. mooy mu ne. mune mom yàlla mom yàlla bu ngeen ma sante bu ngeen ma sante ci lima len jox ci lima len jox ci xiwal ci xiwal bu ngeen ma ci sante bu ngeen ma ci sante ma yokal len ma yokal len te jam te jam xiwal rek la soxla xiwal rek la soxla du ci doylu du ci doylu de innal insana innal insana nitki nitki hubbil xayri hubbil xayri la shadidun la shadidun nit ki du doy lu mukk du doy lu mukk ci yiw ci yiw ci teraanga ci teraanga ci jàmm ci jàmm ci sutura ci sutura ci mbaax ci mbaax loolu nag loolu nag loo ci am rek loo ci am rek xeeb nga ko nga ko kon alhamdulilah boo santee yàlla boo sante yàlla yàlla ne ma yokkal la yàlla ne ma yokkal la ko bu ko defee kon bu ko defee yonent bi jàngal nañu yonent bi jàngal nañu ko salaatu shukri salaatu shukri ne bu la yàlla defalee yiw ne bu la yàlla defalee yiw sant ko sant ko mu yokkal la yiw mu yokkal yooyu bu dee nawet la bu dee nawet la ndox mi ndox mi nga sant yàlla nga sant yàlla ndox moomu ndox moomu la cay sax la cay sax barke barke bokk na ci barke bokk na ci barke ba ñam boobu ñam boobu bu duggee ci sa biir bu duggee ci sa biir def fa wér gu yaram def fa wér gu yaram génnee fa feebar génnee fa feebar dugal fa dal dugal fa dal génnee fa xat-xat génnee fa mm-hmm. gudd fan gudd fan yëpp xëj na ci biiram yëpp na ci biiram kon sant yàlla kon sant yàlla li nga jot a xam li nga jot a xam ci sa xel mi ci sa xel mi sant yàlla sant yàlla yàlla gën laa yokk yàlla gën laa yokk xel mi gën a ñor xel mi gën a ñor gën kawe gën a kawe gën a yaatu gën a yaatu ruuxu bi ruuxu bi la ci yàlla def la ci yàlla def ci ngëm ci ngëm ak ragal ko ak ragal ko nga sant yàlla nga sant yàlla yàlla yokk ko yàlla yokk ko nga gën a gëm nga gën a gëm gën a ragal yàlla gën a ragal yàlla gën a wóolu yàlla gën yàlla gën a nangul yàlla gën a nangul yëpp nag kon yëpp nag. loolu yëpp nag loolu yëpp nag. yonent bi bu ci yeggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci yeggoon. daf ci doon def ñaari rakka daf ci doon def ñaari rakka. ñaan ci yàlla ñaan ci yàlla. sante ko ko sante ko ko. kon bu ko defee rek kon bu ko defee rek. ñu ubbee jotaay bi ñu ubbee jotaay bi. te mooy jotaayu ñaan. te mooy jotaayu ñaan. sant suñu borom sant suñu borom. jalla jalaaluhu jalla jalaaluhu. wa azza kamaaluhu wa azza kamaaluhu. Hmm. nañ ko def ñaari rakka. ñu def ko ñaari rakka. ñeenti rakka. wala ñeenti rakka. rakka bu njëkk bi rakka bu njëkk bi. nga jàng ci kul huwallaahu ahad. nga jàng ci kul huwallaahu ahad. fukki yoon fukki yoon. wala ñeent fukki yoon. wala ñeent fukki yoon. ñaareelu rakka bi ñaareelu rakka bi. fanweeri yoon. fanweeri yoon. ci kul huwallaahu ahad. kul huwallaahu ahad. ñetteelu rakka bi ñetteelu rakka bi. ñaar fukki yoon. ñaar fukki yoon. après fanweer. après bi. ñeenteel bi. nga jàng kul nga jàng kul wallaahu ahad. ñeent fukki yoon. ñeent fukki yoon. booy pare. booy pare. mu doon téeméer. mu doon téeméer. ci sooratul ikhlaas. ci ay sooratul ikhlaas. te sooratul ikhlaas. te sooratul baax na de. baax na de. tuuti na. tuuti na. waaye القرآن تدوكو القرآن تدوكو ولقد آتيناك ولقد آتيناك نجحنا لا نجحنا لا سبعا من المثاني سبعا من المثاني موي فاتحة الكتاب موي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم والقرآن العظيم القرآن بريبة القرآن بريبة برم خم خمينة برم خم خمينة موي سورة الإخلاص موي سورة الإخلاص يلا نينا جحنا لا يلا نينا جحنا لا كو جحنا لا فاتحة جحنا لا فاتحة جحنا لا إخلاص جحنا لا إخلاص كملنا كسيد على جماله كملنا كسيد على Alaaji Malik radiyallahu taala radiyallahu taala anhu waxoon ne waxoon ne wa man daa bihi wa man daa bihi bihi bihi alal yaqin alal yaqini yujab bi ma raama yujab bi ma raama min al matini min al matini ne ku jiital yooyu. ne ku jiital yooyu. te gëm ko te gëm ko. ñaan ci yàlla ñaan ci yàlla. nee na yàlla. nee na yàlla. nangul la sa ñaan nangul la sa ñaan. kon alhamdulilah kon alhamdulilah. ñu jiital ko ñu jiital ko. téeméeru ixlaas. téeméeru ixlaas. yu ñuy séparé. yu ñuy séparé. tasaare ko tasaare ko. ci ñeenti rakka ci ñeenti rakka. yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla nañ ko yàlla nangul ak incha allah incha allah.